يا غير مدادي وأقلامي لمن ساسغ اليماء كما ساسى سيدنا Bak leen xaalis moo ko fi yebal mu ñëw sàkku ah. ci ndigal di ko sàkku ci liggéey bi day sàkku ñaanam dañu ko ñaanal it dem nee na gis na taxawaayam ak pasteefam ci ànd bii mu ànd ak nee na mel na ni fii mooy sunu cosaan. mooy sunu cosaan. yàgg nañ fee ñëw. nee na yàgg nañ fee ñëw. ci ndigalul Serigne Saliou. waat na. nee na wane waat na. mooy Serigne Saliou. mooy Serigne Saliou. lawoon. lawoon. delloo si na ko. delloo si na ko. ka daan def. ka def. defati na. defati na. ñun de naatable ñoom day naatable wuñu ni. ni moom moo kookee. ne kookee. mooy moom mii. mooy moom mii. sunu yaakaar nag doon na ko waat. nee na yaakaaram dolikuwaat na. cantaakoon yëpp takkuwaat na. cantaakoon yëpp takkuwaat nañu. topp ci seen ginnaaw. nee topp ci seen ginnaaw. lu mu digle. nee lu mu digle. ñu def. ñu def. yàlla bu ñu xam lu mu bëggul. nee yàlla bu ñu xam lu mu bëggul. ci bàjjen Serigne Sall. sunu cant daal. nee sunu cant daal ñoom. amuñu kàllaama. amuñu kàllaama gi nee waaw lott nañ ci. nee na na ci. jéem lijjanti kàllaama. yaa ma lijjanti kàllaama bu ma sant Serigne Cheikh bu ma sant Serigne Cheikh waaye daal sant naa ko cant goo xam nee na waaye nag sant na ko xamante ni si am na fu mu tàmbalee am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem Mbacke yàlla na ngeen fi yàgg tëwé maa ngi koy ñaan di ko ñaan te di leen ko di ay njabootam seen taxawaay ci wetam seen taxawaay ci wetam ni ngeen ko sellal ni ngeen ko sellalee te dëggu te dëggu ci loolu mooy li ma gën a neex nee na loolu mooy li ko gën a neex yéen njabootam yéen njabootu Serigne Cheikh ni ngeen ñàkkee masla ni ngeen ñàkkee masla ci mbiram ci mbiram ndoog ñun. àndandoog ñoom. teg ñu ci dëgg. teg ko ci dëgg. du ngeen ñu wax lu dul lu ñuy jariñ. du ngeen ko wax lu dul lu koy jariñ. looloo waral. nee na looloo waral. sunu ànd bii. seen ànd bii ma sawar ci. mu sawar ci. ndax bu ma ci gisoon leneen. nee na ndax bu ci gisoon leneen. dinaa xam nu may def. nee na dina xam nu muy def. waaye yéen. waaye yéen. seen ànd ak ñun. seen ànd ak ñoom ci dëgg rek ngeen ko teg ci ngeen ko teg. est-ce que est-ce que nee na di ko joyanti. bu ñu waree juum. nee na su waree def neneen. ngeen joyanti ñu. ngeen joyanti leen. ànd bi daal. na bi daal yàlla na ko Serigne Touba teg loxo. yàlla na ko Serigne Touba teg loxo. te barkeel ko te barkeel ko. bég naa lool. nee na bég na lool. boo demee nga nee na boo demee santal ko Serigne bi. ne ko bu ak a neexoon bu subaa. ne ko ak a neexoon bu subaa. mu delloo si waat.

Mas me que eu quero susto. Mas eu que susto terminado. E que isso só não, Mas eu que susto não, Ele me não, na mãe, não, Mas eu que susto não, Tudo liga. não, tudo tá. não, suruh, jangan não, dia begini. não, mai, tinggal awak cakap. Amin back. Amin. Lam amin. Léegi incha allah. Amin. Amin. sëñ bi jàll ba noppi. ñu déglu tey wax amiin suuf pour que ñu yëg amiin. nee na bu kenn jóg bu noppee ba mu dugg ci oto bi. bu kenn jóg ba mu dugg ci oto bi. bu kenn jóg ba mu dugg ci oto bi. bu kenn jóg abonné ci suñu chaîne bii di Khelcom production te bés cloche de notification bi ngir mën a jot bépp vidéo ak fépp foo mën di nekk ci àdduna bi ak fépp foo mën di nekk ci àdduna bi